wasalaatu wasalaamu fi atami wa akrami suwarihima wa maanihima ala alxabibi bi akram wa nabiyi l azam sayidina muhammadin sayidi l awalin wal axirin wa ala alihi wa saxaabatihi at tayibin at tahirin summa amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëriñ bi ñu lay nuyu ci sa bés bu tedd bii la yàlla jëlale di la bége tabarakallahu di la damoo ci fànn yu bari di nuyu di ziara suñu kilifa ci jotaay bi ñun ñëpp al cheikh al hajj Mouhamadul Bachir Niang cheybatul hamd ni ko Sidi Ahmad waxee ci jotaay bi mooy ki nga xam ne yàlla dogal na mu bokkoon ak maamoom jamono ci dundu àdduna di ko yóbbu jàkk ja maamam sopp ko di waxtaan ak moom dem ko wéttal ndax léeg-léeg sët dana am ci cofeelu maam lu bàyyi dul am gis ko rek te xela insha allah faju aajo la dem na ba nga xam ne laa yakaadu yaqwa ala almashi walakinahu yataxaamalu ala nafsi dana dem ba nga xam ne daanaka dox sax du ko man waaye mun a yaram mi yow li nga tële dama koy jox xol bi par force yaram daa ko man ndax xola la ko man na tey ak ruux muy déplacement yi nijaayam ja suñu muy ñu seen maam yu baax Cheikh Abdoulaye daan di fadiyallahu seen bi ñu ngi lay ziyaara bu baax wax nañ ma itam ne suñu wéy bu baax a ngi fi El Hadj Omar Sy mm-hmm. moom Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ñoo bokk bàyyi ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara ñu ngi nuyu di suñu jigéen suñu mag suñu kilifa suñu lépp di soxna Umu Kulsum mu tedd mu baax ma ne di sant bi ma nekkee xale daf ma seetloo woon sama papa ko may naa la moom daanaka su ma amee gël tàppe ñeenti fan danaa dem am ci soxna Umu une semaine minkëngalool maam Thiam wagar tabarakallah moo sa Thiam jéengaan Fall ay Ndey Njaay bay Aliou Guèye bay Malick Ndiaye maam Malick Ndiaye yàgg na li may wax ay mille neuf cent quarante neuf la quarante neuf ak léegi wala cinquante quarante huit mu ngi bëgg a yàgg ñu koy nuyu di nuyu soxna sox yéen di nuyu mboolem njabootu ak Cheikhul Hadj Malick gi fi teew ñu ngi nuyu ci seen biir Cheikh Al Hadj Malick si biir toog moom ku niru maamam la kuy faral di gis Cheikh Al Hadj soo ko gisee ku niru maamam la car dama ko koy wax ne ko Maodo man suma ma la gisee rek sama xel dem ci sama maam ku koy faral di gis ci gént soo gisee daa xam ne maam Malick mi mu niru maamam la ci jëm su taxawaay maamam Abdou daan na ko wax soxna Tabara maamam daan na ko wax Tabara man daal su ma gisee Cheikh moo ko jur Cheikh Tidiane rek sama xel day dem ci sama baay def ko niru taxawaay ba ci doxin ba ci loos tabarakallahu si ñu ngi leen ziyaara di ziyaara sarak yépp di siyaare Sidi Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne ñoo bokk ànd ñëw ak ñoom paate ak waa xadara ba yépp di nuyu Sidi Mouhamadul Moustapha Moustapha Moustapha waaw ñépp tudde nañ ko ay turam ndax mat ga ndax mbaax ga man mii tudde naa Sidi Jamil Moustapha jàng bi nga xam ne léegi ma nga Paris ca Sorbonne ñu mm. di fa lijjanti ay këyit ay si waaw tabaarakallah euh, ñëw nañu nag di jéem a wuutu wuutu wuñu dañuy jéem a wuutu koo xam ne suñu niveau ci wàllu saytu xam-xam ak dégg ga ak joxe ga soreewoon na lool waaye ñu jéem rek lu mu tuuti tuuti sànni ci ay kàddu shumuliyatul islam sëriñ bi traduire ko la globalité de l'islam al islaamu yaxtadimu bi falsafatihi wa shumuliyatihi kullama balagahu aqlul insaani min tafkirin falsafi aw min nadratin dirasiyatin ilmiyatin asbaxat madhaban min almadahib alfikriyati almuasira am alqadima dañu ne l'islam ci boppam dafa accompagner accompagnement boo xam ne dafay diriger di orienter dépp philosophie dépp pensée boo xam ne tudd nga dund ak lépp luy xew ci biir dund ci niveau yépp ndax amul benn xalaat walla benn tëralin bu mën a bawoo ci xel te du lislaam ci boppam am na ci yoon mu tëral xal ko yàlla wax ko résumé ko ci lu gàtt ne inna haada al qurana yahdi lillati hiya aqwamu nee na téere bàngoo mooy seen doctrine dund mooy seen constitution dund sama jaam bi nag di sama soppe amu ci lu dul jottali in aleyka illa balaax su ko defee l'islam dox doom doomu lu yàgg dale ko ca suñu maam aadamu alayhi ak xawwa tëralal leen seen yoon bi nga xam ne ci la ñu war a tudd waaye ci biir na ko tërale ci xerañam moom yàlla ba nga xamee ne boj bind na leen ci aljanna aljanna jooju ndax ci kaw suuf la ndax ci àddu kaw aljanna bi ñu jëm la amul solo li am solo rek moo di feeyi ak recommandation yi ak orientation yi yàlla daal nee am na lu xew bind naa aadamu wala bind naa aadama ay xalaqtu sayidana jaddakum aadama wa zawjatahu xawaa ne leen aljannaa ngi ni jardin la bu yaatu lépp lu bakkan di foytu di ko bëgg mi ngi fi ci xeetu meññant foofu ngeen di xame ne meññant am na solo ndax sajara la wax tuddul benn jur tuddul gàtt tuddul xar tuddul nag moom daal meññeent la tudd kula min hadihi sajara waaw laa taqraba hadihi sajara laa taqraba hadihi meññeent bi daal bu ko jege waaye yeneen garab yépp lu ngeen ca bëgg rek am ngeen sañ-sañu soppandiku ca yemu ne ko am nga ñu amu bu am nga ca sañ-sañu soppandiku ko moo di almubaaxaat li ñuy tudde almubaax al aslu al usuliyun ñi jiy jàngale xam-xam usul benn xam-xam la boo xam ne principe ba mi ngi ko fondé ci texte yi nga xam ne mooy texte alquran yi ak sunna te boroom xam-xam yi di ci def ay gëstu di ci waxtaan di ci génn ay àtte origine yooyu nag mooy usul bi les origines des textes coraniques nee nañu ñoom lan la ñu wax dañu ne al aslu fil ashyaai al ibahatu maa lam tarit maa lam yarit aw maa lam tarit qarinatun tasrifu al masala an il xalaali ila al xaraam yàlla ñoom dañu ne li yàlla bind lépp nee na daganal naa ko doomu aadama waaye nag dagan nga boroom xam-xam yi ne lu dul texte boo xam ne nag ñëw na gannaaw ba ne lii xaraam na lii xaraam na lii xaraam ñu ne leen lan ngeen def muy seen tegtal seen firnde seen lay ci wax jooju ñu ne wa huwa alladi xalaqa lakum ma fi l ardi jamia man yàlla maa leen bindeel maa leen bindal bi ci kaw suuf yépp ngeen moom ko moomu jariñoo waaye du moomu sonne ko man ngeen nag man ngeen ko posséder nag ci wàllu di ko toppatoo di ko yokk di ko di ko di ko exploiter ci anam ga mu gën a mate loolu diggante nit ak yàlla mm. waaye diggante nit ak nit ba nga xamee ne péché boobu am na ca garab bi yàlla na leen wàcc leen yéen ñaar ihbitu baadukum li baadin adu wa lakum fi l ardi mustaqarrun wa mataaun ila wàcc leen ci kaw suuf ci sama coobare dana am yu xew na li ñuy tuddi animosité du faral di ñàkk ndax ci nature bi ma bindee doomu aadama la almuaada almuaada ihbitu baadukum li baadin adu wa lakum fi l ardi wa mataaun ila xiin yàlla tudd na ko waaye bugg ko waaye nag xam na ne seytaane am na doole ju toll ne mën na nërmeel yu bare bare bare ci ci baatu noonoo boobu ak wujje boobu ak xëccoo boobu nga xam ne du tegu léeg ci logique dafay tegu ci passion dafay tegu ci xel dafay tegu lu tax ci lu tax kii rek ngeen baal ma ut parenthèse bu tuuti rek ñu continuer yàlla daf ñu baaxe boole ñu Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu mm-hmm. amul kenn ci yéen koo xam ne li mu bind ngay góor ngay jigéen ngay intellectuel bu nekk ci université ba wala ngay sëriñ daara bu nekk ci say gàggu te gàggu te kenn rawul ndax jeexal nga téere yi ku mën a jàmm Cheikh El Hadj Malick ne lu tax mu defe lii di bakkan la di daraja la di nangam la au contraire Cheikh El Hadj dafa bind benn ouvrage tàmbalee ko xadis boo xam ne rek ci ngay xam fu góor gi jëm ndax bëtu basiram bëtu xolam saroon na ba gis ba muy dund ba ba àdduna jeex da ciy xew lépp ndax dafa topp leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jar du ko moyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Hadj Mal bind ouvrage boobu lu jiitu muy génn àdduna mi ngi ko tàmbalee nee nañu ay mille neuf cent dix-huit jëm dix-neuf ne Cheikhul Khalifa Seydou Aboubacar ak maam Seydou Nour dem leen ca zawiya ba ca ndar ngeen liggéey ko su yekkee sama taarif bi yekk sama ñaari taarif bi yekk ma bàyyi leen ak seen àdduna bi yàlla dogal ouvrage boobu la mu ko tàmbale moo di xadis boo xam ne kenn ci asxaabu rasuli sallallahu alayhi wa mii noon ko lool yonent bi itam wóolu woon ko daan na wax ne ñi ma àndal ñépp moom Xudayfa mi la yàlla cërale mu xam su ne surtout nit rek xam na naafeq la wala du naafeq moo tax al Umar ibnul Xattaab def léeg-léeg su moom ne ko maa mbaa mbaa nekku mbaa nekkaguma naafeq wax ma sama bopp wax ma ci fan laa féete ban côté ban boor laa féete ndax yi dañu bari xudayfa moomu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ñun ñëpp dañ ko daan wër sopp ko kunna laa namla'u uyunana ala nadari ilayhi ixtiraman wa taadiman wa ijlalan la sallallahu alayhi nee nañu ñoom saxaaba yi kenn masul am sañ-sañu xool ko rek xulli say bët xool ko ba sa ba sa bët suur ndax wegeel ga daraja ja dal ga teey ga personnalité ba da xool tuuti rek sëgg na nit ñi dañ ko daan laaj ya rasulallah kunna qawman ahla jahiliya fa jaana allahu aw fi aw bi hada alxayr afa baada hada alxayr shar naam wa qutilu afa baada dalika charri xayru qaala bala wa fiihi daxanun nee na dama koy laaj ne ko yaa rasulallah nee na nit kaanu kaanu yasaluuna an alxayr wa ana asalu an alchar maxaafata an yudrikani hakada hada nassu nassu alxadis nassu xadisi almusnadi almarwi an an an an an saxaabi fa xudayfatu bnul yamaan nee na nit ñi dañu daan laaj yonent bi waaw dana baax lu baax ma def ko lu baax ma def ko lu baax ma def ko nee na man nag yi bon rek laa ko daan laaj ma ne ko yaa rasulallah nekkoon nañu ci cettu piir gu dara desul naan sàngara dem ci dem ci giir ëpp leen doole yore suñuy jaasi suñuy fet lël leen taal dëkk ba jël xale yi ñuy jaam gor ya nga xam ne jënd ñu leen moom ñu leen ñu def leen di jaam jël seeni jabar def leen di jéebéer waaw léegi nag bi yàlla wàcce alquran ne hudan lil muttaqin mooy al mooy téere bi nga xam ne ku ci topp ni ma ko santaane yi ma ci santaane ku ci ngoy jub ba faw tere yi ma ci tere ku ko bàyyiwul xanaa bëgg ca nuur ubbi naa sama bunt duma ko tëj mukk feek del feek toll ci xar-xar le dee ñu naan diw de mu ngi sukkaraat ak jigéen ji de amatuñ yaakaar ci moom feek yegg ko foofu loo def ci péché loo def ci mbàkkaar loo def ci mbon soo may jéggal rek ma jéggal nee na ma ne ko waaw ndax gannaaw jiw wi la ay dana fi jëwaat mu ne waaw waaw bu bari ma ne ko ndax gannaaw ay wa weneen yiw dana fa juddoo mu ne waawaaw waaye nag du leer du sell laa yakunu xayran mahdan saafiyan feeñ na ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge ci àdduna mais denc guñ ko sax commencé xëccoo xilaafa mhm. denc guñ ko mu ngi mu ngi ci néeg Seydina Aïcha ñu ngi ko muur musjan waa ansaar ak waa muhaajiroon commencé xëccoo alxilaafa aboubacar sadiq yëg xew-xew bi ñëw fekk leen ñépp jàng nañ ko ci siire yi ci gàmm yi jarul di yàgg moom daal ñëw na fekk ko fa mu tëdd ñu muur ko mu muri ko fóon ko ne ko yaa baax baax nga dund nga di baax di baax ba ci sa tëraay bi ngay baax rek baax bu sàr dal di génn fekk saxaaba yi ñu ngi ci ngëlamte ñi naan ne dee ma rey la ñi naan ne dee na ma euh, cor la sa baat lu nekk ñu wax ko euh, Omar ibnul Xataab euh, dafa dafa dafa dafa oqaylu Ousmane wax mm. sa mënatul wax maat wa man kaana yaabudu llaha fa inna allaha xayyun laa yamut Cheikh El Hadj Malick nag Xudayfa ne ko waaw gannaaw yu wow waaw waaw mën na nag jeexagul ñu jékki-jékki eh, Aboubacar Saddiq rek ni ngeen ko xamee yéen ñëpp moo dajeeg boroom daje ko boo xam ne benn benn comploté lanu feebar na feebar bu normal feebaru naturel tëdd na. fan ya muy tëdd dajee borom ku dul moom ci xulafaaw yi ci des muy Umar muy Usmaan muy Ali dañ ko rey mm-hmm. ngeen xam ne àdduna masul neex mm-hmm. kon boog li yonent bi saa sallam dafa dafa baada hada al xayri charrun mm-hmm. mu ne ko bala fii charr charrun katir ndax boobu yonent bi mi ngi gis mais bugg la bugg la bugg la choqué asxaabam waaye amul luy xew te gis njëkk muy dem te yàlla wax ko moo tax sax doo xam lan la rek lu tax ba mu ne nañ ma indil kayit ma bindal leen ma dicté leen ngeen bind loo xam ne su ngeen ko defee du ngeen teqali ko mukk moom yonent bi am ñu ne nañ gaaw indi kayit Omar ne déet man je suis pas yow alxuraan mat na tey dajale nañ ko wala dajale buñ ko sax ko ko daj waaye mat na bind nañ ko Euh, dootuñu la bàyyi da nga feebar ngay bind leneen man loolu ànduma ci kooku euh, kooku euh, sew sew la waaye xajuñu ca sew sew la waaye xajuñu ca na ko ñëpp wormaale ba mu wéy ba ci bés bii dafa di wàllu histoire ñu wax ko waxee rek Omar ibnul Xattaab nekk ci jàkk ji di julli ci madina benn saay-saay jëm jam ko moo ñaate ko koo xam ne moo doon alfaruq mooy ki nga xam ne bi mu duggee ci lislaam la lislaam manifesté wu génn ala nan istaalana al islaam istaalan fi asqaai madinati rupture bi di daldi taxaw nit ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaa ma'shara quraysh man araada minkum an tazka lahu ummu mhm. falyatba'ni waraa haadha alwaadi képp koo xam ne bëgg nga sa ndey ñàkk la di jirim ci ñàkk bi la ñàkk ñëwal ci fekk mu ci xóot ma toog sa baat léegi képp koo xam ne bëgg nga sa jabar tënj la ñëwal ma ne seen yàlla yi yépp neen la caaxaan la eh, fekk boobu jullit ñi suñuy suñuy nodd ci ay gur ci ay tax la ñuy nodd di ko nëbb ci daarul arqam ibnu abil arqam waaye stratégie la xikma la yàlla inna min aadatillahi subhanahu wa taala an yujriya kulla cheyin wafqa xikmatin laa yaalamuha illa huwa moo li ñuy tudde ak tadarruj ak tadarruju fi l ahkaami ñu rey ko mu ne ah laqad asaabani laim saay saay saay jam na ma de saay saay bi lor na ma de waaye buñ ko rey de nañ def ndànk nañ ma jàpp génne ma waaye nañ taxawal julli gi waaw yàlla la ñuy julli jullilu ñoomam fa ana ba ah xayra wastaxlafa li ummal muslimin fi adaay salaati al asr nañ ma seet génn ma ci biti nañ nañ seet jam-jam bi xóotaayu jam-jam bi fu mu toll ñu ñu defal ma ñu def xisaas mm. ci moom seet diamètre bi nan la toll ñu jame ko noonu waaye bu ko kenn rey nañ xaar ba xam fan lay mujj ak sama jam-jam la su ma ci dee ñu rey ko kooku nga xam ne bari na bu alquran wàccee ànd ak moom ci atte yu bari yoo xam ne joxe na ci xalaat ndax yàlla nag moo ne yonente bi wa amruhum shura baynahum moo ne ko shawirhum fil amr looloo ngi wone ni diine su ci concertation génnee waxtaan génn ci xel paralysé te xel su paralysé liy ñëw moo di passion li li la neex rek li la lii sa bànneex rek ngeen baal ma tëjagum parenthèse bi Cheikh El Hadj Malick dara ci yooyu tam mm-hmm. amul dara dara dara lu mu yokk ci diine amul dara dara dara lu mu wàññi ci diine waaw Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala waaw kooku di Omar Ousmane ibn Affan mi nga xam ne mooy ñaareelu xalifa bi sallallahu alayhi wa denc ñaari doomam ñu tudde ko boroom ñaari leer yi lum nu rëy yàlla dogal moom itam la dal mbokkam ma dal ko rek moom daal révolte yàgg na ci àdduna am na ñu jóge Égypte am na ñu jóge Basra ak Kuufa ca Iraq daal ne ko daal doxaloo dëkk ndax daal banu Umayya les Oumayades ñoom dañ nga jël jox leen ay post euh, dégg nga ba tax na nangam nangam nangam encercler le këram lu war a toll ci ayu bés ëpp na ko sax am na ñu ne ñaari ñaari ayu mu wax wax wax ñu ne ko daal da ngay dindi diw dindi diw dindi diw dindi diw fal diw fal diw fal diw fal diw mu ne leen mu ne leen loolu nag du ma ko mën a defee noonu ndax li ma jox sañ-sañu ma fal ñi jox leen ay responsabilité ci jikko mat ko ci njub mat ko ci justice mat ko ci droiture mat ko ci moral ñu ne ko daal il faut nga jële ko fi mu bañ la ñu wax ñu fexe ba fekk ko fa mu toog yore alquran di jàng ñu jëflanteeg moom ñu ñàkk tegg am na bés sax Ali ibn Abi Talib dafa dafa dafa yooxu ci alxasan wal xuseyn ne leen bu leen seetaan Ousmane dem leen ngeen aar ko ñu ne ko wallahi bàyyi la ñu man yëpp de mën a dem leen ngeen aar ko Muhammad ibnu Abi Bakr alayhi salaatu wasalaam ñëw toog ci dënnu Abu Bakr Sadiq jàpp jàpp jàpp sikki moom di ko pes doomu Abu Bakr Sadiq de jàpp sikki ma Ousmane ibn Affan di ko pes toog ci dënnam rangoo ñi génn Aïcha ñu àtt wallahi Aïcha ñu àtt mu ne ko law raan wallahi sama mbokk mu fàddu na nga ca biir waaye Aboubacar sa baay mi la jur eh, su su gisoon lii bëtam tegu ca dana am ko lu ko metti àdduna dana xat moom dana soof moom mu jël benn kaamil ne kon boog ittaqullaha fi kitaab bi laalla kitaaballah an yakuna lii fidan ñu jël kaamil ba teg fale rendi ko moom dañ ko rendi waxuma jamono dañ ko rendi ngeen xam ne ban lu bon yàgg na fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag Xudayfa laa jàpp ne ko waaw gannaaw mbaax kooku lu bon loolu te yi ci la bokk xar bu xoru bu riddati ci la bokk ñu xëyoon rek منعوا الزكاة فحاربهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه Omar ibn Xattaab ni ko da nga déggul nag ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na euh, usima dimaa'ul muslimin man qaala laa ilaha illa allah man qaala ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah faqad asamu minni dimaahum abu bakar ne ko yeggal am na lu ci des illa bi xaqiha illa bi xaqiha wa min xaqi wa min alxaqi almuqtarini bi hatihi shahada aw bi hatayni shahadatain min alxaqi almuqtarini bihima itaau zakati li ahliha li ahliha azaka ji su génn rek jullit gi dem matul Cheikh Hadj Malick radiyallahu taala anhu ñu ne ko waaw mu ne nag waaw ñu ne yonent bi waaw daxan bi mooy lan mu ne qawmun yatakallamuuna bi alsunina wa hum min abnaai jaldatina taarifu minhum wa tunkir mu ne ko waaw ay woowu nan lay juddoo mu ne ko nit la xam ne dañuy bokk ci arab yi wala ñu bokk tey ci senegal gi wala ñu bokk ci feneen réew di ay jullit taarifu minhum wa tunkir suñu waxee nga ne iskay waaye suñu jëfee rek nga ne ah, soo waxee ñu ne iskay waaye soo jë suñu soo jëfee ñu ne accam taarif minhum maana maana seen jëf ak seen wax seen wax seen jëf du du màndaxoo du du màndaxu du nekk benn léegi li fi xew mooy suñu waxee nga xeeb leen suñu jëfee nga xeeb leen ah Serigne Mansour nee na léegi li nga xam ne moo xew moo di suñu waxee nga xeeb leen suñu jëfee nga mu ne ko yaa rasulallah suñu yeggee ca jamono boobu lan nga may dénk mu ne ko la ma lay dénk nga ànd ak majorité jullit ñi mu ne ko su fekkee ne amuñu jamaa dem nañu ba ay fraction moo ay groupe bi groupe ku nekk sa ruq di woote ku nekk sa ruq di woote ku nekk sa ruq di woote mu ne ko faataziril jamaati kulliha aw aw kullaha walaw an taadda ala asli shajaratin xatta yudrikaka al mawtu fafaal su fekkoon ne da dem ci benn taatu garab toog fa ba dee fekk la fa na nga ko def waxin la ca yooyee jamono waaye lislaam dafay dox ak jamono ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha yarda lakum salaatan wa yakrahu lakum salaata yarda lakum an tuuminu billahi wa bi rasulih wa yarda lakum an tutiu llaha wa tutiu rasula wa yarda lakum an tunasixu man wallahum llahu amdakum yàllaa ngi bége yàllaa ngi bége ngeen ngëm ko ngëm ku genn bokkaale dul lax su soobee yàlla ak sëriñ bi su soobee yàlla ak sëriñ bi lii de sama barke sëriñ bi laa ko amee landi na waaye xëy na rek ku ko dugal ci cadre wa maa yuminu aktaruhum billahi illa wa hum mushrikun rahma annahu asbata lahum imanahu walakin maa damimati shirki moo xam nag bokkaale ga ndax bu mag lay doon wala ndaw lay doon defe naa yooyu yu ndaw lay doon incha allah soobee yàlla ak sëriñ ndax itam ko wax moo la gën a xam ne eh, yëf yëpp a ngi sottee ci kàttanu yàlla mm-hmm. waaye ci suñu culture rek ñu di ko wax waaye du nu du sax ci suñuy xol xormaal mag bi rek la e mu ne ngeen nga ragal yàlla ngeen topp ngeen ngeen gëm yàlla gëm ab yonentam an tuubidu billaahi bi rasuli ngeen topp yàlla topp yonentam dana bëgg itam ñi nga xam ne ñoo di seen kilifa di seen kilifay àdduna ngeen di waxal ñoom wa an tunaasixu man wallahumullahu amrakum mm-hmm. ngeen di concerté wonte mm-hmm. di joxe ay xalaat les autorités temporelles yi nga xam ne yenn bokk askan yenn a bokk réew mi lay seen xalaat wax leen ko dee leen ko wax ak ñoom ak munasaxa waru leen rek yéen population bi yéen peuple bi ngeen di ko wax waaye ñoom itam la ñu war a wax war nañ ko wax waaye nag su fekkee ne la ñu war a la wax la ñu war a wax dañ ko waxul la ñu war def defuñu ko am ngeen droit wax leen ko revendiquer seeni droit yonent bi moo ne inna li taalibil xaq inna li saaxibil xaqi maqaala am na mbokkam moo koy wax léegi ci saalu sëriñ mm. inna li saaxibil xaqi maqaala képp koo xam ne am nga sa droit boo war a revendiquer na nga ko laaj laaj ko nag ak yar ak tegg bu ko laaji violence bu ko laajee doole ndax doole yoo xam ne yemul su fekkee ne dañ nga ci bëgg a dëgg sa revendication am ñoo xam ne gëmuñu yàlla ragaluñu bëgguñu tuyaa ragaluñu bàkkaar dangay xam nooy jëflanteeg ñoom waaye rek na dëgg na na na na sax su saxee rek am lu xew inna li saaxibil xaqi maqaala te yonente bi sallallahu alayhi wa ba tey nee na maa daa xaqun waraahu taalibun bépp xaq boo xam ne biir na la ne yow jullit bi bir na la ne yow bi sa droit la saxal ci di ko sàkku wallaay lu mu yàgg-yàgg daa dem ba teg ci sa loxo waaye su fekkee nag soo ne soo saqati ñu ne kooku nga ne patt dootoo wax doo jot dara doo jot dara ci say droit moom su ko defee wàllu shumuliyatul islam loolu une petite partie globalité de l'islam la religion et sa pensée authentique moo di al maqasidul xams aw il kulliyatul xams noonu lañ ko tudde ci sharia yonent bi nee na yàlla nee na na ngeen ñoŋal seen xel na ngeen ñoŋal seen alal na ngeen ñoŋal seen diine na ngeen ñoŋeel seen der waaw na ngeen ñoŋeel seen seen askan mm-hmm. al kulliyatul xamsa xifdul xifdul aql xifdul aqli mm-hmm. wa xifdul diini wa xifdul nasabi wa xifdul nafsi wa xifdul maal fexe leen ba seen xel lépp lu koy jël bu leen ko jëfandikoo bu leen ko jege kon boog soril drogue soril gaz soril alcool waaye bu mu mën a doon nag am na benn kilifa gu ma mas invité ndogu ci Addis Abeba 1967 ma def sama bac dem fa jóge Égypte dem fa vacances ndeysaan marocain la mu nekk mas na nekk Sénégal mu yëg ne doomu Cheikh Abdoul Aziz Al mu invité ma ndogu bu ñu ndogoo ba pare euh, xam naa ne euh, yeneen ambassadeur a ngi fi boobu jàll télim ngi dund mm-hmm. ak euh, Mengistu kii Haile Selassie mi ngi dund am na amoon na benn ñeesam bu ñuy wax Ajokidechi Ajokidechi xamoon naa ko ak afoo ku teg la benn peintre bu mag ñu bëgg ma di may invité ambassadeur bi nag yu daje rek fekk mu yore kaasu sàngaram gis ma rek ruus lay sàng dama xaj ma ni mu ne wallahi la ashrabu ila ba'da salati al-isha mu ne alcool bi du ma ko jege mukk te julliwuma gee ba pare <laughs> gannaaw gee daal rek laa ko jël ma ne ko alhamdulilah allah yestu abna yestu e eh, tabarakallahu nga bàyyi ko mu ne itam nga sàmm sa alal bañ ko pasar pasaree alal dañ koy sàmm dañ koy yokk def ay investissement ci sa alal réinvestissement waaye jël alal ji ci dëgg-dëgg ngeen baal ma suñu suñu culture la am xew mu rëy ñu ne la borom yax bu rëy nga ne waaw waaw fas naa ko yéene wane de bés ba moom su ñëwee du ma ca ñaaw ak ah, jomb naa ko yooyu la ñuy jomb naa ko dina walaay jomb ko borom yàq bu de ah ngénte li ñëw wala takk gi ñëw wala ceet gi ñëw la nga dajale woon yépp nga def ko ci du xel loolu mooy israaf loolu mooy tabdir te yàlla neen innal mubadirina kaanu ixwaana shayatin wa kaana shaytaanu li rabbihi kafuura yàlla ne na gaspillage kas boo gis du sant yàlla mu day weddi xéewal rek ndax nee na ñooy mbokk seytaane ndax itam ci dëgg-dëgg xew moo xam ne wóor na la ne soo ci defee deux cent mille francs mu rafet jekk dund ak bokk dunde ci nit ñi xéewlu ci nga ne dinaa ko dinaa ci def cinq millions yàlla tegu la ko yonent bi tegu la ko logique tegu la ko conjoncture bi ñuy dund tegu la ko mais yaa teg sa bopp te lan lu tax bëgg ñu ne xewam moom kenn mësu ko gis ni mu amee ci jigéen ñi noonu la amee ci góor ñi mu amee ci jigéen ñi noonu la ci góor su ko defee nag kon yonent bi daal nee na yàq alal baaxul ñett yooyu moo wax yarda lakum salaatan loolu wax naa ko sanq moo ne wa yakrahu lakum salaatan yàlla itam ci boppam bañal na leen ñett qiila wa qaal wa idaatu lmaal wa kathratu suaali toog rek ci grand place yi yow dégg nga xew xewam dawal jënd laas jëndal pop ma nga ca génn nañ ca foto diw yëggali xew ca daw li xew Tiwaawan yëggali xew Tuuba yëggali xew Canaba li xew yëggali xew yëggali xew ah kenn ku nekk di titrer sa journal loo xam ne biir na leen soo ko ko titré bu mu daal di jar ci saa si ndax nit ñi dañu sawar léegi ci sa sapaan ak dégg la Fall masala loxoom Fall mufti ku baax la woon dafa xëy xëy ñu tàgge ko Fall dee na Fall mufti ñu bari xaritu ñëpp loolu ñëpp jooy ko ndeysaan ba saraxal sa ba ñaan Fall nag ñu wax ko ko mu ne wallaay maa ngi dund waaye nee na kër yi ma tàggee ma dem fa nuyu naa leen waxtaan ak ñoom ñu kaf ak man jox ma ma añ reer waaye ñu dem rek waaye teewul nee na dem rek ne dee na ñoom daal nañu kii daal dafay faal faal waaye faal dee na xam nga li metti la ku neexoon la e waaye nit ñi daf ci am ñoo xam ne dégg safaan moo leen gënal dégg jiw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nag bokk na ci li yàlla sib ci yéen tere leen ko xiilaa xaala lu xew tey yow maa la koy wax waaw allo kooku Sud FM waaw lan mooy question tey bi laaju tey bi ñu ne tey de question mooy nangam nga wax a wax a wax ba mas naa dégg sëriñ bay Abdou di ko wax nee na laaju tey bi nañ ko nañ ko tëj dana tax nit ki wax lu mu war lu wax ba dugg safara su ko defee ak sànq sa alal sànq sa alal ak ah ki ñëw si Mali alaaji sa baay dëgg la alaaji Mali la ko jur dëgg la alaaji Mali Ousmane la ko jur dëgg la Ousmane Amadou la ko ko jur dëgg la mu wax yëpp dëgg la waaw ca dëgg-dëgg su ma la dee jox loo paase waaye waaye naa la jox ñeenti junni juróomi junni bopp waaye El Hadj Malick Diouf El Hadj Malick Ousmane Ousmane dem mati dem ci kër gi xaw ma lan wax a wax a wax di génne ñeent fukki junni joxe wala téeméeri junni ne may la leen te yaa ngi bëgg a yàlla xam na ne kër gi dara def jigéen jël. dañu ñëw ndeyale ko biñ ko ndeyalee mu jaaxale lool ndax ndeyale itam dafa metti wërsëg yemul am am yemul pexe yemul cër yemul am na koo xam ne deux cent yomb na ko lool mais am na koo xam ne cinq fu mu koy jële rek te na ko ticc ah kooku ñu ndeyale ko mu sonn lool ku mu xam rek wax na la di xaar bés ba nag jaaxle lool itam ci dëgg-dëgg ndax jamono boobu daa wow ba ñu ne gannaaw suba la ngénte li mu ne ma ne xaw ma mbir mi nu muy rafet am fu mu dem ñu ne ko daal alal ji ma dénkoon dafa laatu waaye suba dinaa fa ñëw na mu tooge ci suba sa di fuddanu bay def fuddan ci tànk bi benn xale ñëw salaamaaleykum maaleykum salaam dama doon laaj yaay diw bàjj bàjjen bàjjen bi mu ne maa ngi nii mu ne ko samay samay sama maam nee na mu ne ko mu ne nee na xale ba dellu na dee na mu ne alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi koy yëg ñu ngi ñëw ah ngeen bàyyi mbokk yi ngeen bàyyi ñu ngi wax ci ndigalu Sidi Mouhamadul Mansour al Khalifa nee na yewi nañu. mi ngi yewi papaam léppam doon ko ci ñun di suñu kilifa ñun ñëpp ci jotaay bi alxaaj Mouhamadul Bachir ndax toogaay bi metti na ak koor gi te mi ngi woon fi mu nekk donte le yàlla jox na ko ruxas yëpp yëpp yëpp wa ala alladina yutiquunahu moom moo ko gën a jàng faqih la suufi la fidyatu taami masakin wa ala alladina ala alladina yasuumuuna maa maa baaligi baaligi chiqi min al anfus wa taabi wal mashaqa ñooñu ñun asqattu anhum taklif waaye rek tabaarakallah yàlla nañu ko yàlla loolu la yàggal suñu kanam ñu tàllal loxo ñun ñëpp mu ñaanal ñu yàlla kenn ku nekk luy sa bëgg-bëgg na nga ko teewal ci sa xol incha allahu taala lu mu ñaan yàlla nangu amin amin ñi bëgg ay jëkkër ñu teewal ñi bëgg ñaareel ñu teewal ñi ragal ñaareel buñ ci xalaat jigéen ana maam diw maa sama maam nee liir ba dellu na mu ne alhamdulilahi rek wallaay xamoon naa ne alaaji moo ko jur moo tawakal mu ne tamay yàlla du ma du xawee suma sutura day na waar su su waaw non ndayele yi dafa métti ndax kullu qardin jarra nafan fa huwa riba ay kullu nawin min anwaa almuamalati wal fi ma bayna almutaamilin qarra jarra nafan fa huwa jar la nafan fa huwa riba jox naa la fukki junni nga war ma jox cent cent jox naa la cent mille nga war ma jox deux cent mille jox naa la deux cent ma jox quatre cent mille yàlla nee na zi ndollante kooku lan la ndax intérêt intérêt coono daf koy tungoom coono daf koy tungoom liggéey daf koy tungoom waaye tëdd rek ci sa kër ne ndeyee na naa la ñu ñëw wàcce la fukki piisu basin fukki piisu borode fukki piisu xawma la fukki piisu ndàngam fukk boole ci deux millions am nañu joxe ba cinq millions metti na donte le nag dindi ko jafe na waaye metti na ndax dafa dem ba nga xam ne dafa nekk ci suñu aadan bokk suñu mœurs bokk suñu culture su ko defee nag yooyu la nekk na loo xam ne lu jafe dindi la ci réew mi waaye teewul rek lañ ci war di waxtaane ndànk-ndànk ñu di ko waxtaane ndànk-ndànk rek ba ba muy dañ su ko defee ci cadre daayira yi itam cadre daayira yi balaa ngay jox sa sëriñ suukaru koor mais seetal koñ bi ci la sëriñ bi di bëgge seetal koñ bi balaa ngay jël sa suukaru koor un million cinq cent mille lu mën a doon cinq cent mille jël ca boog cent mille francs wala deux cent mille francs wut ci dara ci suukar bu ko xeeb wut ci donte tele cinq cent kilos de riz la ñi dëkk xamante nañu am ñoo xam ne daf lay wóor ne kër yaay diw de saga fi nekk ak sutura waaye yorul dara nga jox nga jël juróomi kilo wala six kilo jox ko benn xale suñu laa ba pare mu dem ne dama doon laaj papa diw wala yaay diw wala maam diw mu ne ah doom maa ngi ni daayira bee la ko jox mbokk yee la ko jox mu ne ah yal na yàlla yokk de yal na yàlla barkeel ah ñaan yooyu am na solo waaye jël lépp lépp lépp lépp yóbbu def nga sëriñ bi loo xam ne digalu la ko ndax sëriñ bi fa mu nekk lañ ko jox man nga koy joxe comme que nag luñ ko jox moom daf koy joxe yow dimbali nga ko segg teggil ko beneen yan xamuloo dañ naan sëriñ si dañuy fond luñ leen jox ñu lekk ko am na sëriñ su du lekk de am na sëriñ soo xam ne luñ leen jox ci dëgg-dëgg wallahi dañ koy séddale jàmm yàlla yeeg seen njaboot te loolu mooy yoon su ko defee itam euh, li ñuy tuddee solidarité sociale dafa di lu am solo dafa di lu am solo ak a neexoon mboolem daayira yi affilié wu ci kër Cheikhul Hadj ndax kat coow li coow li puso àndaan adduna bi dox na lu yàgg ku ñuy wax Alaaji Malick ñëwul waaye ba mu ñëwee li xew yëpp ci la xew ay kaar day rang kaar yu bari fu ngeen jëm Tiwaawan lu ngeen fay wuti ziyaara ji ku ngeen di ziyaara ji Cheikhul Khalifa radiyallahu taala cheikhul xalifa kuy wayjuram ak cheikhul xaj malik kuy sëriñam ak cheikhul xaj malik xaj malik jël lépp kaar yi rangati bari lool fu ngeen jëm Tiwaawan lu ngeen fay wuti dañuy ziare ku ngeen ziare cheikhul xaaji Mansour di turandoo xalifa bu tedd bi fi nekk yàlla yàlla dolli ko saxal doo ko dolli ko kàttan mu yàgg jiite xilaaf yéen jiite kër gi moom alaaji Mansour moomu mooy kan mooy rakk sëñ Babacar Si kuy wayjuram alxaaji Malik kuy sëriñam alxaaji Malik alaaji Malik jël lépp ku ngeen jëm Tiwaawan lu ngeen fay wuti alaaji Mansour alaaji Abdou alaaji Abib moom la ñu seeti tabaarakallah tabaarakallah kuy seen baay alaaji Malik kuy seen sëriñ yàlla alaaji Malik jël lépp kon boog ma ne ak a neexoon formule bi nag ku ko bàyyeeg sëriñ Mansour mi wallahi mu liggéey ko ndax expert la eh, eh, ci wàllu yëpp interprétation ci wàllu comptabilité eh, moom mutaadidul mawahib wal jawaanib ci wàllu yàlla na yàlla laf ci wàllu culture dafa dafa dafa dafa dafa dafa généraliser lépp yàlla bu yàlla la lor dugal la suñu làmmiñ xam lu bari mais ma ne ak a neexoon daayira yi affilié ci kër gi yëpp yëpp yëpp waxtaane ko am benn fond de solidarité islamique kenn ku nekk ci waa daayira yow ñu ne la chaque fin du mois na nga joxe mille francs walla boog sax deux cent francs deux cent francs chaque individu dafay participer de cent francs wallahi loolu suñ ko mënoon léegi léegi lu bare bare bare bare bare euh, faju ci sa ci lu bari ci ci réew mi dafa am loo xam ne ñun ci suñu bopp ñoo koy taxawee ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la defoon ba muy dund moom dafa nekkoon koo xam ne dafa indi équilibre ci société bi wax ni ba ba nga xamee ne amagul alal kees gi amagul alal trésor l'islam baytul mal alal amagu fa dafa newoon pat daan na def daal ku génn àdduna mu daajal la luñ la dimbalee luñ la jàppalee waaye ba nga xamee ne dem nañu ba xasawaat yi bari jihaad bi indi alal ju bari koom mi bari daan na wax ne man maata waxat taraka ailatan fa ilayya wa alayya fa ilayya wa alayya képp koo xam ne génn nga àdduna waaye sa loxo jotul woon ci ginnaaw ndeysaan miskin nga pauvre nga say bor man yonent bi maa ko gàddu sa njaboot man yonent bi maa leen gàddu loolu la kër gi di doxal ba léegi kër yu mag yi loolu la ñuy doxal ba léegi xool leen waa ñu soxna ummu xayri Babacar ca ba léegi ba léegi mi kër yu mag yi ba léegi seen waa ñu dox soo demee fii waa ñu soxna ay da ba léegi mi ngi dox nga dem tey ci Tiwaawan waaye ñu soxna Zeynab jóge na fa waaye suñu doom yu baax yaa nga fa di soxna Daba Mbaye ba léegi ñu ngi nga dem ci beneen kër nga dem ci beneen kër nga dem ci beneen kër su ko defee loolu dafay doon loo xam ne lu ama am solo la sëriñ Abdou mu ndaw wax na ko ci ziar général bi passé nee na gën a jàppoo gën a bennoo gën a bëggante gën a dimbalante gën a bàyyante xel su ko defee nag démocratie am na lu ci islam gis yonent yàlla nee na ci alquran majorité boo gis la ci ëpp tekkiwuñu tus wa ma aktaru nnaas walaw xarasta bi muminin wa in tuti akthara man fi l ard yudilluka an sabilillah in yattabiuna illa dhann parti bee ko wax rek parti bee ko wax ñooy majorité lànkal nee na li ëpp ci ñooñu dañu ragalante ginnaaw rek yaa ma neex rek fi nekk ba pare nag ñu xool la bët yu xonq yooxu la nga tiit di baj baj mu mel ni du sa carte moo fi teg les autorités yow yaay électeur am na koo xam ne mas na fi def élection ca dans les années quatre-vingt mais bi mu gagné ah tabaarakallaahu journaliste yi ñëw di ko laaj. agence euh, de presse bu Paris ñëw fi def benn interview ak moom ne ko dafa mel ne les grands élect grands électeurs moo di chef religieux bi mu ne ma non a ne ñoom ñoom ñu grands électeurs yi te wallaay xaw na rey boppam ci kër sëriñ fu nekk jonk na fu nekk ruq na fu nekk toog na kon boog loolu dafa di dafa di force bu nekk suñu loxo lu ñu mën ay suñu bopp la waaye daañu xam li ñu am lan ñun duñu ay politiciens waaye ay ay umana lañu dañu di nit ñoo xam ne